ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان السلام عليكم ورحمة الله mbokki taalibe yi xanaa di dellu di sant bu baax rek day ndokkeel ñëpp waaye di leen jottali kaddu cant ak kaddu mbégte bu bàyyi ko ci Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré li nga xam ne mooy xel Serigne Saliou Touré jiite woon liggéey bii nga xam ne bar na tey di fukki masoon bi fekkoog Serigne Sidi Guèye ñuy jëwriñu diwaan bi Serigne bi wax nag ni day fedd nag kan cantam rek ak ndokkeelam tàmbalee ko ci jëmmi Serigne Cheikh Ibrahima Guèye di mosul mi nga xam ni na ko Serigne Saliou Touré sant woon fukk bi liggéey na ko noonu bombal fépp ñu ngi koy sant bu baax a baax waaye di sant taalibe yëpp di ndokkeel taalibe yëpp ci taxawaay bi ak jàpp gi ak fonk gi barab bi di sant nag ñi nga xamante ne bii dañoo àndaloon ñun ci liggéey bi. booba ak tey naam ay taalibe lañu waaye tax nañu bu fulk bi kenn tumuraankewu ko ci Sénégal waaye kenn tumuraankewu ko ci àdduna ñi ñi nga xam ne ñoo yore wàllu gis bi ci télévision yi jëm ci wàllu média bi ci njiital Serigne Mouhamed Lamine Bara Gueye ànd ko waa Majmahun Nurayni TV yëpp ak ñi ñu àndoon ci liggéey bi yëpp ñu ràññee ci Al Khadimiyyah TV ràññee ci Touba Vision Touba Modène bi TS TV académie Serigne Saliou Touré suñ ko nekk tey si koor maa jiite ak samadiya bu sëriñ Abdou Samad Mbacke di ko ziar bu baax Bichri TV DMA TV Thiès TV Kennel TV Thiès Event Thiès Média Prestige TV ak mboolem chaîne yi nga xamante ni bii bàyyi woon nañ seen yitte yëpp ñoo ànd ci liggéey boobu sëriñ bi mu ngi leen di jaajëfal di leen sant liggéey bi ni ñu ko waxee léegi rek ci njiital sëriñ la Lamine Bara waaye di sant ñi nga xamante ni bii ñu nekkoon ci wàllu organisation bi. waxtu wu ne di waajal barab bi ba taalibe yi bu ñëwee seen toogaay yëpp jekk ak sécurité bi nga xam ne ñoom la ñu àndoon ci liggéey bi noonu nga xamante ni bii police bi nga xam ne mooy euh, premier arrondissement seen taxawaay ci liggéey bi yëpp rek bàyyiwul kenn sant na ñëpp gërëm na ñëpp di ñaan suñu borom may ñu fekk ko ay waaye liggéey bi lépp nag ñu jël ko def ko addi Serigne Saliou Touré teg ko ci loxo mu teg ko ci loxol Serigne Touba kon loolu la kat yooyu la Serigne bi waxoon di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf ba déwén asalaamaaleykum wa rahmatullah ارسلنا بمتي المصطفى واتجي بمتي خير اصطفى ارسل نبي المنطقه علي قد كف موتا خنا الي حتى عيوب ما تقير ربي بشهر رمضان شهر الامان والمنى والفيضان ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيضان ناجيت ربي بسهر رمضان